sëriñ si nee nañu deliif yéefar yi nee nañu deliif ñépp a ngi nag nekk fi suuf mu féete kaw képp ku ne jullit ñi nangul nañu ko yéefar yi nangul nañu ko koo xam ni kii bañal na ko dara ñu wan ko ay wu ne képp ku koy noonoo ko bañ ñu di ko jëw faw waka bañ muy dox di dégg lu mu bañ te di ko seeru it fu ne koo xam ni kii gàntu na ko lu dee fi moytu dal na ko lu dee fi bëgg mooy na ko yàlla na nu koy nangul lu ne lu yàlla def matu la bañ sant ca mbaa nga far ko muñ moo gën a taggu di ko bañ ku yew am cant gu ne ku nangu sax teel a nelaw te boole am xel ku fit te maandu xam yaru rafet man war na maa taggati kët kenn ki gën junni bi nit te boole am xel ku fit te maandu xam yaru rafet booy amee ba gaa rët ba xel mu nekk ni toxet mu jóg dalal xelum ku rët di reeka bégle te du rët du fàtte mukk ab sangam te du dawit ak ndogalam du génn mukkit ndigalam kii rekk a des gor jullit mbooloo mi war na koo gërëm tey toppatoo nag ndigalam loo xam ni nii du ndigalam mat naa ragal mata bayit koo xam ni kii dalay teral ak a bégal ak a musal bu ay dikkee ak bu dikkul bàyyil la muy tere yawit koo xam ni kii dalay teral ak a bégal ak a musal bu ay dikkee ak bu dikkul bàyyil la muy tere yawit du jàq mukk du tawat bu la gisee bis nga tawat mu daldi dindi sag tawat te may la ngay faji tawat ku koy bégal mu dolli la ku koy lëjal mu sànki la ku koy sonal mu folli la ku weddi lii alku nga kat ab jalaloo yóbbu mu jar ku yóbbu lor mu jari lor ku yóbbu jur mu jari jur ku yóbbu xeet mu jari xeet ku yóbbu yëf mu jari yëf ku yóbbu jëf mu jari jëf ku yóbbu sëf mu jari sëf ku yóbbu yat mu jari yat ku yóbbu doomam ami doom ku yóbbu koomam ami koom ku yóbbu buumam ami buum ku ko yetut kenn du ko yet loo xam ni nit jox na ko ko day dem fa yàlla jox ko ko bu dee lu bon te tuubu ko mu al ku dem sawara it loo xam ni nit def na ko ko day dem fa yàlla wax ko ko bu dee lu gën te bawu ko mu jox ko lépp lu mébét ku yow boo fay bëgg a dem nga yor sa bopp nag ba xam ndax lii fi yow bëgg ak payam ngay door a jóg dem di ko wut ku yow boo fay bëgg dem nga yor sa bopp nag ba xam ndax lii fi yow bëgg ak payam ngay door a jóg dem di ko wut ngir loo ko jox dana ko jaay te bu jaree mu ni la sa njëg gi jar na kaare waay yóbbul sa kër te dal di fat loo ko lebal gisug payam ngir yàlla mi da ko gërëm yonen ba yit da koo gërëm mu far di soppe di xarit ku mu gërëm yàlla gërëm yonen ba yit dal gërëm malaaka yépp di gërëm yal nan gërëm ngërëm lu mat te yàlla nan defi laram yu toppa topp ndigalam yu làq-làq ngërëmam yokku gëmam te set set yal na nu may ak jébbulu gu te may nu ak falu te may nu nag ak sébbulu te may nu nag ji nawet